numéro 2 face Doro. numéro 2 face Quatrième combat de la soirée. Quatrième combat de la soirée aujourd'hui. Samedi 12 novembre 2022, mesdames et messieurs, on est à l'arène nationale. Le promoteur nous Nougué à la tête de la structure. une Production organisée. Vous une Production jàkkaarloo Joro Joro mooy problème am jël ci góor numéro 2 ci góor numéro 2 mi ngi jóge jaare ci boor yi roofoon nañu attention ñu ngi bëree attention attention bàqan na ko rëpp na jógaat na jógaat na attention abi bi arrêté na combat bi abi bi arrêté na combat bi génn nañu kon ñu dugaat ci biir géew bi ci góor numéro 2 face à Joro boobu mooy quatrième combat de la soirée promoteur Ousseynou Gueye à la tête de la structure Ouzin Production moo la soirée kii sera le quatrième cinquième de la soirée Bata Doro Kiri Walfadjri waaw waaw mi ngi noonu sama mi ngi noonu Doro daan na Tigo na Digo numéro 2 Digo moo juum Digo moo def erreur na dee Doro daan na ko Doro daan na Digo numéro 2 boobooy quatrième combat de la soirée quatrième cinquième mi ngi noonu Doro écrit Walfadjri daan na ko